et même les équipes nationales. Mhm. nga baal ma. Mhm. li Sénégal yi doon wax rek laa lay rapporter. il paraît que da nga déstabiliser équipe yu bëri aussi bien les équipes de. déstabiliser comment. comme de basket parce que ñu ne beaucoup de joueurs beaucoup de professionnels dañ la doon courtiser. lool ah, loolu da doon loolu da doon indi ay tensions au sein des au sein des équipes ba joueurs yi. may mhm. man de xaw ma ku courtiser xaw ma ku courtiser wul kuy courtiser. ñëwoo ci man ni ma dama lay courtiser. ndax man professionnel la. ma ne des avances ma ne dans le cadre de votre travail man yu ñàkk fayda yooyu du ma nekkuma ci mosuma cee nekk. gis nga Sénégal gii lu ne la ñuy wax man sama baat ca kaw man gis nga lu ñàkk fayda. musuma parce que dañoo ne équipe de football bu 2000 bi da nga ko perturbé woon moo tax. 2001 nu ma leen ba 2002 ñu ko ñu écarté la attention attention as ce que vous racontez. Mhm. perturbé comment dama mës a dem seen regroupement dama mës a dem seen hôtel dañ ma mës a gis ma ànd ak joueur man mësumaa nekk ci lu ñàkk fayda joueur bu ma mës a man ak ay journalistes ñoo ko bokk yoruma téléphone joueur man yorewuma téléphone joueur kuy courtiser yaa xam sama baat ci kaw bu fekkante am na ci ñu ma doon courtiser wala ñu ma doon am nañu na ñoom joueurs yi nañ ko wax sequma ak ñoom loolu liggéey lañu seqoon yaa may dégg bu baax mm-hmm. parce que Sénégal gii na ngeen na nit yi bàyyi di di wax lu ñu xamul ak di tegal nit ñi ay ay ay neewoon nañu parce que looy wax day am preuve yan équipe perturbée ça quoi je les ai empêchés de jouer parce que ñu ne amoon ay tension entre. mais c'est leur problème mais ça c'est leur problème moi je pas man ça c'est c'est vous qui me l'apprenez comme ça yow yaa ma ko xamal man yëguma loolu yëguma loolu mosuma koo yëg abo ah bon. Ah, son c'est là ah bon yooyu amoon na. quelles sont tes sa relation ak sportif yi ak dirigeant de sport yi ñi nga jot a ñi nga jot a xam. jàmm. amitié xaritoo ñu ci bari ba nëga ni ay ay xarit lañ ba nëga ay xarit lañu équipe national boobu ngay wax équipe nationale boobu ngay wax na nga dem nga wër leen nga ne leen ndax man yor nañu sama numéro ba tey wala ndax xaritoo na xam xaw ma fu ñu xaw ma fu ñuy nooyee man nekkuma ci lu ñàkk fayda ak Aliou Cissé seen relation daan daan nga dégg c'était la capitaine kuy wax ak équipe national moom ngay waxal quelles étaient vos au-delà de. amuñu relation lu dul jàmm ak salaam demal nga laaji ko ko demal nga laaji ko ko jàmm ak salaam madame man nekkuma ci lu ñàkk fayda. Mm-hmm. et puis ce que vous ce que les gens font ou ce que ce que vous c'est mm-hmm. très grave. Mm-hmm. parce que xam nga lu tax. da ngeen di wax loo xam ne dafa yor njaboot. ma yor njaboot. Mhm. yor jëkkër. Mhm. mu yor njaboot yor jabar. Mhm. il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent ça c'est pas bien. d'accord mënu leen góor ak jigéen bu ngeen gis ñu ñuy wax ngeen ne da koy doxaan wala daf koo bëgg wala ku jigéen ki da koo bëgg ça c'est très grave. et y a le sélectionneur national allez vous gardez toujours les relations. non même pas. Mmh. quelle relation. relation bi may garder ak les sportifs mooy yow comme par exemple relation bi nga garder ak man nii. Mhm. tu as besoin de mois mhm. nga ñëw def ak yow sa liggéey. Mhm. yaa ngi dégg ku ne dox sa dox. ça toujours été comme ça. da ngeen maa mës a dégg man ñu da ngeen yéen da ngeen a mës a dégg ay dara ci yu ñàkk fayda. depuis combien d'années da ngeen koo dégg ñu naan mu nga ak diw ak mu nga ca baar yaak mu nga ca dancing yaak mu nga ca lii mu nga ca laa wala mu ngay farantoog diw ak wala nekk na ak diw. il faut que les gens arrêtent ay ay dafa rafet ak ay dafa jekk ak waaw jigéen bu rafetee jekk rek normalement Aliou Cissé da ko war a doxaan wala euh, Kalidou Fadiga wala je ne sais pas qui wala dugg na fii génn na fële il faut arrêter et puis arrêter d'étiqueter les gens dans des trucs yoo xam ni yu ñàkk fayda la man su ma nekkoon ci naka sudul noonu ñaar fukki at ak juróom ma nekk ko RTS sama tur musta wàcc ngeen dégg ma ci lu bon du yéen a ma wër. Mm-hmm. du dañu Facebook ñoo doon wax man fu ma nekk su ma nekkoon ci naka su dul noonu kon du ngeen ma wër kon chaque jour ngeen am samay nouvelle man nekkuma ci loolu xam nga lu may xool mm-hmm. sama bàmmeel parce que xam nga lu tax. njaaloog ñàkk fayda ak dugg a génn man kenn yarewuma loolu kenn yarewuma loolu man sama loxo ci kaw Sénégal damay dox sama koñ bi damay sol sama carax yu vert yee caraxu douche di dox ci mbedd mi parce que du ma sëgg duma ma rus parce que defuma ko fi waxuma ko fi ku dee sa bàmmeel moo fi nekkoon di farantoog di def yu ñàkk fayda yéen du ngeen ma wër kon yéen ak may dégg ci réseaux sociaux yi man ba may dugg ci métier bi ba ma ciy dugg di nekk stager la la ma laay jow waxoon ca laa téye ba nëga ni toog ci liggéey bi boo ci bëggee yàgg liggéey bii ñu nekk boo ci bëggee yàgg nit ñi naw la yu ñàkk fayda ngay génn boo ci nekkee génn ci boo ci nekkul bu ci mës a dugg laay jaw loolu la ma wax te loolu ca laa toog ba nëga muy joueur football di basketteur hmm, di handballeur di waa course hippique relation yi ma mës a am mooy relation liggéey jàmm ak salaam waaw man nag nekkuma fi di justifier walla di expliquer di di attardé wu parce que su ma ci yàggee sax dafay mel ni sax dafa am leneen maanaam duma ci yàgg li ma la mën a wax mooy loolu gisuñu joueur bu dugg sa fii fii maa ngi fi nekk depuis vingt ans fii ngeen ma fekk ñaar fukki at dugg leen ci koñ bi bu ngeen paree dangeen di dugg ci kër yi ngeen laaj ndax mës nañ fi gis joueur bu fi dugg si wala dirigeant bu fi dugg si wala góor bu fi dugg si di taxawaalu di tambaambalu di man nekkuma ci loolu est-ce que sax du looloo tax ñu ñu ma nekk au frigo ndax nekkuma ci caaxaan. Ah non non parce que parce que man ci sa wax laay laay dellu da nga ni. mais mais bien sûr yaa ma ko gën a xam yow. mais si. métier mais métier yëpp que mu nekk musique que mu nekk journalisme que mu nekk lii ak lii ak lii. mais ma ne ma ne làmmiñ du lekk moroomam te ñoru yaa ma gën a xam métier bi c'est vrai que da nga ciy doog a dugg xam nga li fiy dox métier mais et puis ce n'est même ce n'est ce n'est pas uniquement le journalisme mais yàlla a la musique yàlla a lii loo gis ci àdduna loo gis ci àdduna nit ki bu koy def bu nangoo lu ñàkk fayda lu ñàkk fayda fekk ko fa man loolu laa la bëgg a wax parce que yow ci sa début da nga ni ma ba ñu ma RTS ba ñu may embauché sama charme moo tax moo tax ma delloo si la wax la li ma la wax moo tax ma di ma may ma delluwaat pour tontuwaat la métier yëpp a am farantoog kalangaatoog ñàkk sa du du journalisme rek du journalisme rek si suis désolée. mës nga nekk victime de chantage. man man kenn du ma kenn du ma laa la wax xaw ma chantage xaw ma parce que ki ñuy chantage mooy ki def lu muy nëbb non genre harcèlement musuñu la harceler muy sportif <laughs> comme dirigeant comme aussi à la RTS man de des journalistes man mosoo nekk victime d'harcèlement man hmm. may mun a bu ñu dugg ci hmm. ay cas bu ñu dugg ci cas li ma la mën a wax moo di ay cas cela veut dire leeral ñu ko déedéet parce que da nga gëj a génn sénégalais bëgg xam ci li nekk <laughs> te tamit sa actualité may mhm. xoolal mhm. métier bi yàgg naa ci mhm. li ngay def nii xam naa ko li ngay def xam naa ko te dama koo jàngi France ñëw gis nga pour pousser ma man ma wax lu ma bëgg ta wax mun ta nekk mais li ma la mën a assurer moo di euh, muy dirigeant ci wàllu sport bi lañ nekk waxaguma waxu RTS ci ci wàllu liggéey bi ma doon def Mm-hmm. muy sama métier muy dirigeant muy joueur muy public musu nit musuma cee def chantage parce que xam nga lu tax musumaa def lu tax nit di yor sama dara wala di gis ma di gis lu ñaaw wala dara ba nga may chanteloo chantage man sama lépp macha allah sama lépp a leer ci liggéey bi yaa ngi dégg. affaire RTS munoo ma cee wax loolu lu ma xamul. mais boo ma waxee am na ay cas. noo dama ne la bu ma dugal ci cas maanaam. Mhm. bu ma dugal ci cas mooy bu ma wax looloo xam ne man même su fekkee ni loolu am na xëy na man yëguma ko yaa ngi dégg parce que yow mën nga ànd ak Malick mii ah? xëy na Malick am cofeel ci yow waxu la ko maanaam di def mi Malick mi ngi jël ay photo mais mën na am cofeel ci yow yow lijjantiwoo ko xëy na yaa nga ca leneen moom pour mu attirer yow euh, sa attention ci ci moom xëy na mu lay defal photo yu bon xam nga loolu mën na nekk mais man ci kaawu RTS euh, may je te le dis xaw ma yëguma maa ngi toog di xaar. da nga wax léegi ni que. Hmm. milieu bi dafa am ay réalités yu ci am. donc da koy confirmer est-ce que les journalistes yow mi en tant que femme. Hmm. nekkoon reporter sportif. Hmm. est-ce que yeneen jigéen journalistes yu mel ni yow comme comme mës nañ la wax ni que vivre nañ ay ay choses yoo xam ne ni que de la part des sportifs ou des dirigeants est-ce que la pratique de votre métier a vous a euh, fa fa ah mais benn liggéey yombul benn liggéey yombul liggéey moom benn yombul <laughs> waaw loolu moom ku ko dund aussi xëy na doo ko wax ci place publique bi parce que boo ko dundee c'est parce que yaa ko bëgg a dund parce que yow force bi nga am tey yor sa micro yor say caméra di dem nga dem ci un homme di ko di ko di ko di di ko interviewer su fekkee ni que yow moom pour pour nga jël ko dafa am charte yu mu lay tegal booba yow yaa ngi affaiblir sa liggéey <laughs> booba yow ci yow liggéey bi nga nekk yow gëmuloo ko man mësumaa nangu loolu man mësumaa nangu loolu man fii un ministre de la République di temps de Diouf am nañ fi ay problèmes yoo xamante ni heure bu ma defee émission ñu envoyé son directeur de cabinet RTS ñu visionné parce que nee na dama dama ko dama dama li may wax moom laa koy wax dama koy xas. ah bon waaw. daf la mos a def ay propositions yu. indécentes déedéet du proposition inde ta ta pas comme du proposition inde dama la bëgg a wax ni la man sama liggéey. Mm-hmm. kenn mosuma cee chantage ni ma ko sentiré laa koy defee. Mm-hmm. te li ma gëm te muy dëgg. moom laa doon toog ci antenne télévision bi di ko fa wax. moom mu yaakaar ni man la may wax moom laay gaaral yaa ngi dégg loolu am na fi ba ñu may wax droit de réponse moom directeur de cabinet ñëw toog di visionner man émission bu ma def waaw loolu am na fi dama la loolu pour wax la ni la man ay dara man. ci liggéey bi ma doon def kenn mësuma chantage mësuma farantoo ak ministre ci sama liggéey mësuma farantoo ak xawma euh, sportif mësuma farantoo ak spectateur nekkuma ci loolu